damaa ñëw muñ rek a ah, jigéen ñi moom faaw ñu leen di muñee muñ rek sëy moom benn sëy sëy bu ne dina am ay dog-dog ah ak ay coono mais eh, jigéen moom dañ koy yërëm dañ koy woddu dañ koy taral dañ koy muñal dañ koy sagal ah noonu la demee. Wally bés bi ngeen bàyyi lay suñu papa Ismaïla Lo ah, mu doon lu rafet Sénégalais yëpp rafet ko moom dañ taxawee ne taxawu papa yi. waaw mais la rek bu mu moom ah dara ànd ak suma waajur te wax dëgg yàlla bi sama waajur dëddoo ba léegi euh, ñu ngi koy gis ñun njabootu coon waaw loolu la rek. macha allah waaw. kon Aliou na cour des grands quoi. waaw na saako suuf bi xam nga saako suuf la moom nañ la koy yéen. waaw bu la gars yi a ba fay ñëpp dañuy arrière bàyyi la ak moom. ko dee xanaa lii woon parce que maa ngi lay gis nga koy kaañ muy mel nag na ko booy takkal jabar na. non non bi ñaaw na. <laughs> lu tax nga mën sañse man géwél laa papa yaa mën sañse nag ah waxoon naa la ko Grand Théâtre waxaat la ko fi ah, ab géwél laa <laughs> ah nam naa rek maa bàyyi non yàlla tere yaay sama fils waaw loolu di sa doom muy jël soxna nga teel a ñëw fajar dooleel ko xanaa xolam war na dal xelam war na sedd bi mu la gisee eh, xelam war a dem ci waajuram wu góor woowu di Papa yàlla na suuf awof ci kaw allahumma amin waaw ah, ñun loolu mooy suñu devoir mm-hmm. doom moom dëgg yàlla ku jur da ngay ñaan yàlla bu dee jigéen mu màgg nga may ko wala muy góor màgg bëgg soxna nga dox ko mm-hmm. Aline wax dëgg yàlla woon na papaam yëpp ak ay bàjjanam ak ay mbokkam ah wax dëgg yàlla ngir ñu ñaanal ko soxna hmm. loolu mooy suñu devoir moo tax ñu am ci fierté nag sant ci lool te di ko hmm. ñaanal sëy bi barkeel lool defal ko ci njaboot gu barkel njabootu lislaam hmm. waaw dëgg yàlla loolu daal ak sant yàlla la rek. waaw loolu daal lañ ci mën a wax. yéen seen askan dañ leen askanoo da ngeen di takk eh, ay sëykat gis nañ ko sunu yaay jaaga gis nañ ko soxna Aïdara mi fi sëy ak ñeneen ñi fi nekk ay jigéen di fi sëy eh, ci réseaux ñëpp di critiquer eh, Aline soxna su mu takk ñu naan dafa ñaaw mënoon na takk ku rafet ma waxtaan ak famille bi ñu ne ma ñun sëykat la ñuy takk takkuñu taar. mais loolu xanaa ñuy wax loolu xanaa dañoo xool bu baax xale bi ma gis. xale bi de. ah man xale bi gis naa ko. Ah. dëgg yàlla gis naa ko. te wax dëgg yàlla ku jigéen ah wax dëgg yàlla xale la macha allah te ni jigéen war a mel ci ni ma ko gisee. mel na noonu te li solo bëpp gi solo mooy lu ñu wax mooy sëykat yaayam Awa Baba Thiam ñëpp xam nañu ko. ah bu fekkee ne nag jur na doom ju mën sëy Aline xool te Aline bokk na fay fañ boo xam ne tamit du dugg ci n'importe ko xam a nit na mënta matal lépp. jël lépp loo nga jël dara ñëpp ni gongo loolu amul fenn mais loolu amul solo li am solo rek mooy sëy bi yàlla def ci barke. wax dëgg yàlla te non sëy du taar ba pare xale bi dafa taaru macha allah waaw ah, loolu kay wax bu yàqu la rek <laughs> waaw. kontaan nañu papa. non Philippe Pé nga xam ne dëgg yàlla lu ñu nekk rek yéen a ngi ci muy bànneex muy naqar ah, muy soxla muy lu mën a doon da bu na tourné gis leen. o jaajëf yéen. kontaan naa Pape. Philippe. jaajëf ok. cër boo xam ne dañu ko jox Ismaïla loo egsi na mu ngi nii toog cër bi du tey ku xam diggante coon ak Ismaïla loo xam ne lii war na ma bëggoon ñu waxtaan tuuti rek maanaam ki ñaan-ñaan kii maye maye ñu bëgg fi toog nii waree fu jàkk yi cant bi yëpp bu nu ko waxtaanee ñu def farata ji bu ñu jëmee ci kër ga nag ku nekk waxtaan dañuy bañ ubbi fi waxtaan ñu war a wax bi ñu wax ñu naan ñu jékku jàkkale ñu ne ah, dañu nekk néegu yàlla ñu ngi toog waxtaan ak bokk ndey ak baay Ablaye Naar Seck waaw sa doomu ngi nii Waly sama nijaay El Hadj Seck bi nga xam ne bàyyi nañ ko doon Seck ñu suñu kilifa ñu ngi nii toog ale na ngi nii toog ak sama nijaay Assane Ndiaye Ousmane egsi na léegi sunu borom alim mu baax mi nga xam ne moo jur Khadija te joxe cëram moo tax mu toogee ne mais egsi na léegi nag doo euh, Ousmane yow mi ñu bàyyi la waxtaan ak waa jàkk wax la waree bi nga xalaat nan la ñu imam bi sax dëgg lu gis non non dafay jóg waaw xam nga def waaw xam naa ne waaw bu damay jóg xam naa li nga wax Diouf dox doxal nañ ko joxe ma ko ñaari ñaari kàttan bi

imam imam imam Jalle. ana groupe bi. ñu ngi ko bàyyi yow kese nga def groupe. mat sëkk. ah ndax ki fi ñaan si jabar. mu ne woon yaay maamam. ak maamam El Hadj Abdourahmane Dieng. El Hadj Birama Dieng. maamam yu bëri. ci travaux travaux publics. léegi dañu woon. donc di ñaan si jabar bi ñëw fii léegi baam bi war a ko ñaanal sa jabar. waaw ñu ñaan maye. je place Alioune Seck benn. waaw incha allah.